الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد nu ñëw ci sunu bindub tey ci téere bu màgg bi di alquranul karim noo ngi ci biir saaru an nuur noo ngi taxawoon fi borom bi subhanahu wa taala doon waxe lu jëm ci bakkaar bu màgg boobu bakkaar bu rëy boobu te mooy njaaloo noo ngi taxaw ci wa xurima dalika ala almuminin wara tàmmulee tey jii ci walladina yarmuuna walladina yarmuuna almuxsanaati thumma lam yatuu bi arbaati shuhada fajliduhum thamanina jalda wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika hum alfasiquun illa alladina taabu min bacdi dalika wa aslaxuu fa inna allaha gafuru rahim borom bi subhanahu wa taala day wax atte yoo xam ne atte yu mat a bàyyi xel la atte yoo xam ne atte yu mën a xew la sunu borom subhanahu wa taala bim ne wa xurrima dalika ala almuminin daf caa teg ne walladina yarmuuna almuxsanaat ñi nga xam ne dañuy tuumaal jigéen ñi nga xam ne dañoo sëŋewu jigéen ñi nga xam ne duñu ay njaalokat ñoom ñi ngi ci seen néegu sëy ñoom ña nga ànd ak seeni boroomi kër sunu boroom subhanahu wa taala nee na ñu mel noona nga xam ne ay niti neen lañu loolu moo tax sax ci beneen barab mu jox leen melaw alxaafilaat mooy ay niti neen lañ yoo xam ne ñoom seenum xel sax lu jëm ci njaaloo nekku ca duñ ko xalaat sax yëguñu sax lu jëm ci buntu boobu meluñu ne jigéen ñi nga xam ne saa yu nekk ñi ngi def ay pexe ngir tàbbi ci bàkkaar boobu yi ñuy wax azina jigéen ñu mel noonu nag nga xam ne dañoo sëŋewu sunu borom subhanahu wa taala nee na koo xam ne danga leen a tuumaal nga xam ne danga leen a tuumaal ci njaalo danga leen a tuumaal ci njaalo lan moo nu xamal ne almuhsanaatu fii li muy tekk mooy jigéen ñi nga xam ne ay niti neen lañ jigéen ñi nga xam ne ay woroomi kër lañ ndaxte sunu borom yàlla laay ji mi ngi ko indi ci ginnaaw bi mu waxee njaalo kat ya ca la indi ña nga xam ne ñoom du ñu ay njaalo kat ña nga ca seenub say jàpp seenub say jàpp seen njàmbur seenum xel du ca toq mukk lu jëm ci njaalo ñu mel noonee nag sunu borom yàlla nee na koo xam ne da nga leen a tuumaal walladina yarmuuna al muxsanaat da nga leen a tuumaal ci njaaloo da nga leen a tuumaal ci njaaloo almuhsanaat dana ñëw ci alquran di tekki ñoo xam ne ay afifaat lañ mooy dañoo fegu muhsanaatin gayra musaafihaat foofu loolu la fay tekki fii itam loolu la fiy tekki mooy ñoom duñu ay njaalokat lii tegtale ne dañ leen a tuumaal ci buntum njaalo mooy li ci yàlla sa borom teg mooy ñi nga xam ne ñoo leen tuumaal di seeni woroomi kër indiwuñ ay seede wala sax duñ seeni woroomi kër waaye indiwuñ ay seede yoo xam ne dañu leen di seedeel indiwuñ ay seede yoo xam ne dañu leen di seereel luy wane ne loolu la ñuy wax dëgg la muy ñeent ñeenti seede thumma lam yatu bi arbaati shuhada maanaam fekk jigéen juy sëy nga tuumaal ko ci njaalo te yow mi ko tuumaal indiwoo ñeenti seede ndax loolu rek moo ñu xamal ne kon da nga ko tuumaal ci njaalo ndax ci lislaam moom fenn dongo lañ fi sàkkoo ñeenti seede mooy njaalo te yow jigéen ji nga xam ne mi ngeeg boroom këram nee nga ambu bii mu amee da koo njaalo lislaam danaan la ana sa ñeenti seede ngay nakk-nakkal wala nga naan awma ko suñu borom joxe ndigal ci yow muy fajali duuhum nañ leen dóor samaaniina jalda juróom ñett fukki yar nañ leen bàcc bàccal nañ leen wantal ñaata yar juróom ñett fukki yar yàlla ñetti atte la joxe ci ñooñu atte bu njëkk baa ngi noonu ndax kat ab der lislaam daa ñëw ngir di ko sàmm ku nekk ci néegu soyam nekk ak boroom këram nga tuumaal ko ci njaalo te amoo ñeenti seede borom bi nee na nañ la dóor juróom ñett fukki yar benn baa ngi noonu ñaareel ba mooy yow moom kenn duutul nangooti sab seede maanaam maanaam matatoo seede borom bi nee na wala taqbalu lahum shahadatan abada bu leen nangooti ci ñoo ñi nga xam ne ñoo tuumaal jigéen ñoo ñi te amuñu ay seede bu leen nangooti seen seede mukk ci àddina tegaat ci ne wa ulaika humul fasiqun ñooñu nga xam ne ñoo tuumaal jigéen ñu jàpp seen njàmbur googi jigéen ñooñu nga xam ne ñu jàpp seenu njàmbur doon ay góor yu set wicc nga tuumaal leen ci njaalo te amoo ñeenti seede yu wane ne dañoo njaalo ci ni ko lislaam bëggee borom bi ne ñooña day ay fasiqun lañ mooy dañoo génn ak topp mu daal di dabaatal ne illa alladina taabu ah lu may ña nga xam ne nag dañoo tuub min baadi dalika ci ginnaaw bi nga xamee ne ndeysaan ñoom ñoo tuumaaloon jigéen ñooñu ba àggal walbatiku nag daal di tuub yamuñ ci tuub ga waaye wa aslahu dañoo yewenal bu fekkee ne daa am luñ yàqoon ñu defaraat ko fu seen kàddu àggoon ba derub jigéen jooja yàqu woon ñu jéem faa àggale seeni tànk ak seeni jéego leeral foofee ne ah nun kat noo waxoon waaye wax dëgg yàlla noo noo génnaat ca lañ waxoon waaw noo waxoon waaye noo génnaat ca la nga xam ne moom la ñu waxoon noo seede woon waaye noo taxaw tey tey tey weddi suñu bopp borom bi ne na fa inna allaha gafurur rahim ñooña kat nañ xam ne yàlla ab jéggale xaa kon la ku mën a suturaal ab jaam la waaye ku bari yërmaande la léegi illa alladina taabu daa ñëw ci ginnaaw ñetti yëf ndax ci ñetti yépp lay dellu nga xam ne léegi bu ñu tuubee ba jiitu woon mooy duma leen ci juróom-ñetti fukki yar dañ leen koy baal bu ñaareel ba mooy dañoo waxoon ne bu kenn nangooti seen seede ndax léegi dañuy wéy di nangu seen seede beneen ba mooy dañoo waxoon ne ay faasiquun lañ ndax léegi melaw fisqu boobu ndax day léegi teqali ko ak ñoom ba faw foofu waroom xam-xam yi wute nañ fi mooy su fekkee ne istisna daa ñëw baada jumalin mutaatifaatin aw mufradatin su fekkee ne da nga istisna te bi ngay istisna ay jumlaa ko jiitu yoo xam ne yépp dañ leen a ataf fajliduhum samanina jalda a wala taqbalu lahum shahadatan abada a wa ulaika humul fasiquna daal di set foofu waroom xam-xam yi dañ fee wuute ku mel ne Abu Hanifa nee na istisna bu ñëwee ci baada jumalin mutaatifatin wala jum baada jumalin mutaatifat ci bu mujj bi dong lay dellu ban moo mujj fii wa ulaika humul fasiqun abu xanifa nee na zaalat anhu sifatul fisqi léegi moom melaw fisq dañ na ci moom waaye nag ñaar yu njëkk yi benn dañut mooy du tee dañ koy dóor duma ko juróom-ñett fukki yar beneen bi itam seede moom diisu ko nangooti ba faww yeneen waroom xam-xam yi ku bokkul ak Abu Hanifa daan ne aha kay ñaar yu njëkk yi moom dana dañ dégg nga te mooy duma yi maanaam maa ngi jom duma yi mu mënta dañ ñaar yi nga xam ne ñoo topp ci bu njëkk bi mooy dañ mooy mën nañoo wéy léegi di nangu lan ab seedeem beneen bi itam sifatul fisq nekkatul ci moom nekkatul faasiq waaye nag bu njëkk boobee moom mooy dóor gi ñu ko war a dóor juróom-ñett fukki yar loola moom mënta dañ tuub du ko dindi dañ la koy dóor Muhammad Lamin Shinqiti borom Adwaa'ul Bayaan nee na man li ma gis moo di bi ma tadaburee alquran damaa gis ne yu mel nii daf ci faral di ñëw waaye li àtte fii mooy alwaqfu dañoo war a taxawlu bu ñu amul dalil boo xam ne ci alquran la bàyyi ko wala dalil boo xam ne ci sunna la bàyyi ko dañuy waqfu mooy dañuy taxawlu ba keroog munuy leer ne istisna bi dellu na ci bii wala delluwul ci bii daat ci joxe ay misaal daan ne koo xam ne daa rey ab jullit te njuumte ci la ko reye wa ma kaana li muminin an yaqtula muminan illa xata'a wa man qatala muminan xata'a borom bi daa wax ne fa tahriru raqaba mu'mina ak lan wadiyatu musallama ila ahli lu juróom illa ay yasaddaqu moom nee na ku ne xam ne ne illa ay yasaddaqu jii nii delluwut ci ñaar yëpp ñoom ñi nga xam ne dañ leen a rayal seen mbokk te ka ko rey juum ñoom bu njéggalee diye ji mu waroon a joxe kon diye ja moom danañ ko ko baal waaye du tax mukk mu wàcc ko goreel jaam ba loolu moom dañ cey juboo kon gis nga ne delluwut ci yëpp beneen bi itam mooy borom bi subhanahu wa taala nee na fa in tawallaw fa xuduuhum waqtuluhum xaytu wajadtumuhum wala tattaxidu minhum waliya wala nasira dan illa alladina yasiluuna ila qawmin baynakum wa baynu mithaq su ngeen leen jàppee na ngeen leen rey faqtuluhum fu ngeen leen fekk nag faqtuluhum xaytu wajadtumuhum ba noppi nag bu leen amati ci ñoom bu leen jëlee bu leen jëlati ci ñoom waliya wala nasira daat ci teg ne ah illa alladina yasiluuna ila qawmin baynakum wa baynahum mithaq fa in tawallaw fa xuduhum waqtuluhum la waxoon da ngeen leen di jàpp jàpp leen ay osaara ay otaas ba noppi wëlbatiku ngeen rey leen ku ne xam ne ne loolu moom bu fekkee ne ñoom dañoo dem ci nit ñoo xam ne suñ digganteeg ñoom daa am kóllëre gu fa jaar borom bi nee na ñooña su boobaa bu leen leen rayati bu leen leen jàppati waaye delluwut ci wala tattaxidu minhum waliya wala nasira loolu moo tax lu am solo la wax ci masala mi ndax al usuliyuun ñoo ci wuute waaye moom nee na nee na bala nga caa dogu naan ci kii lay dellu mbaa kee lay dellu faaw nga am ci dalil kon al fuqahaa thalatha abu xanifa moo ci génn malik abu xanifa génn na ashafii ahmad ibn hanbal ñoom nee ñu illa alladina taabu ji day dellu ci maana melaw fisq dañ ci moom day dellu ci itam dees na nangu seedeem ndax gannaaw tuub na borom bi subhanahu wa taala nee na walladina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadaau illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arbau shahadatin billah innahu la min alsadiqin walxaamisatu anna laanata allahi alayh wala allanatu allanatu allahi alayh in kana min alkadibin wa yadra'u anha alazaba an tashhada arbaa shahadatin billah innahu la min alkadibin walxaamisatu anna gadaba allahi alayha in kana min alsadiqin walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu wa anna allaha tawwabun hakim laay ji sunu boroom yàlla daf cee ubbil buntu ñi nga xam ne ay woroomi kër lañ ndax doon nañ nekk ci ay xat-xat yu méttee métti ndax kenn ci ñoom bu bettee soxnaam mu nekk ci njaalo mu dem war a indi ñeenti seede ngir ñu nangul ko waxam jooju kenn ci ñoom ñi nga xam ne ay woroomi kër lañ ku ci bettoon sa soxna muy njaalo nga war a dem wuti ñeenti seede ñu fekk si ko su ko defee nga xam ne mooy tax yow la ngay wax ci moom ñu mën koo nangu te loolu mën naa amu jafe ah te xam nga ne njaalo na moom da nga koo gis mu wóor la wóorul yàlla ne njaalo na te muutuwaale ko moom dana la jafe léegi sunu borom yàlla wutal na la alxal mooy foo mën a génne nooy def da ngay dem ci alxaakim bu fekkoon ne tribunalul islam am na fi wala fu ñuy attee ci l'islam boo indee sa soxna ne man kat daa koo bett muy njaaloo ñu ne la ana sa ñeenti seede nga ne awma ko ñu ne ah kon de liaan moo fi sus da ngay def liaan muy rëbbonte rëbbonte ga nu muy demee sunu borom yàlla nee na walladina ñi nga xam ne yarmuuna dañoo tuumaal azwaajahum seeni soxna seeni soxna la ñu tuumaal dégg nga yàlla dogal walam yakun lahum shuhadaa'u illaa anfusuhum amuñu ay seede xanaa seen bopp ñoom ñi gis daal ñoom dong dong dong dong ñoo mën a wax ne wax dëgg yàlla ñoo gis waaye amul keneen ku ànd ak ñoom ci gis gi borom bi nee na fa shahadatu ahadihim maanaa seedeb kenn ci ñoom mooy lan arba'u shahadatin billah ñeenti seede yoo xam ne ay ngiñ lay àndal mooy day seede ne maa ngi seede ne saa soxna sii maanaa gis naa ko loolu lay seede nga xam ne bu ne maa ngi seede ne saa soxna sii gis naa ko mu tàbbi ci bàkkaar boobu bi nga xam ne wala yaasu billahi taala moom la yàlla tere da koy wax ñeenti yoon da koy wax ñeenti yoon maanaam ñetti yoon yu njëkk yi day wax ne maa ngi seeda di giñ ne soxna si nga xam ne moom lañ ma dencaloon gis naa ko mu tàbbi ci njaalo ñeenteelu ngiñ la mu daal di indi merom yàlla teg ko ci kawam daan ne maanaa yàlla na ma sunu borom yàlla mere su fekkee ne gisuma lii ma wax ku ne xam na ne borom kër bëgg naa suturaal soxnaam lool ba àgg ca dayo ba ku ne xam na ni itam ñëw ca mbooloo ma di xotti sutura sa soxna kenn du ko def kon bu demee ba àgg fii rek daa gis ne maanaam mënutut a ñàkk xam ba noppi wëlbatiku weddi la nga xam nga xam ne da ngaa xam ba noppi xam ne defut ba noppi nga wëlbatiku di giñ ne daa def loolu mooy xam ba noppi jëfewoo loolu merum yàlla la laaj mooy almaghdubu alayhi mooy ñi xam ba noppi jëfewuñ moo tax moom mii maanaam lu mu jëfandikoo merom sunu borom subhanahu wa taala la wax ne yàlla na wàcc ci moom loola nag fekk ne mbooloom jullit ñëpp a nga ko fekk wala mbooloom mu bëree bëri bëri fekk nañ ko fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah ci ne innahu la min as-sadiqin danaan ashhadu billahi inni la sadiqun maa ngi waat ci yàlla ne man de lii ma koy seedeel nii wax naa ci dëgg daa koo gis mu tàbbi ci bàkkaarum jaaro laay ji bi nga xamee ne wàcc na kenn ci saxaaba yi daa ñëw daan ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy saad bnu ubaada ah waaw nii lañ ko wàccee a hakada unzilat ya rasulallah yonente yàlla muhammad daa di di ko tooñ wax ansaar yi ne ko ne leen yaa maashar al ansaar ala tasmauna maa yaqulu sayyidukum boo xam moo nekkoon seenu sang xanaa du ngeen dégg seen sang bi li muy wax mooy li muy yim nii mu daan ne ya rasulallah ñoom ñoo ko wax ansaar yi ne ko ya rasulallah bul ko yedd de laa talumu day ku fiir kii ku fiir la koo xam ne mësta takk soxna mukk wàcc ko keneen di ko ñeme tegaat moom ak fiiram àggoon na ci comme xas wàcc rek keneen ci saxaaba yi ñemu ko takk xanaa ko wàcc ne ko yàlla kenn war ko mën rek waaye maanaam fiir gi àggoon na ci kenn du ñemee takk koo xam ne moom moo ko takkoon mi ngo mu daal ciy teg ndeysaan daan nekk ah wallahi ya rasulallah inni la alamu annaha xaq wa annaha min allah maa gën a xam ne lii dëgg la te ci yàlla la bàyyi ko waaye man kay dama yéemu rek naka la góor di fekkee maanaa am ponkal mu nekk ci soxnaam ñu ne ko bul ko laal lu may da ngaa indi ñeenti seede moom mu bu demee di wuti ñeenti seede balaa ñëw fekk ci góor ga noppi ca la muy def ba demoo yoonam di li moom rek kese moo ma jaaxal far yàlla sa borom yàlla woo yàlla ku ñu wax Hilaal ibnu Umayya kenn la woon ci ñett ñooñu nga xam ne si ñoom ñoo demutoon Tabuk muy Hilaal ak Maraara ak Ubay Hilaal ibnu Umayya Kaab ibnu Maalik laa bëgg a wax moom lañu ñoom la ñu tënkee Makka Maraara ibnu Rabiia ak Kaab ibnu Maalik ak Hilaal ibnu Umayya Hilaal far moom loola far dal ko mu daal di ñëw fa xaat ndax daa dem këram fekk góor gu fa nekk di fekk ak soxnaam mu wóor ko ne maanaam dégg na ci ñaari noppam gis na itam ci ñaari bëtam waaye ngir jëfee tax na mu daal di bàyyi ba xëy ñëw ci sallallahu alayhi wasallam ne ko nag inni jitu ala ahli aishaan fa wajadtu indaha rajulan fa raaytu bi aynaya wa sami'tu bi udunaya yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day saat ah ne ko waaw moom day wax dëgg yàlla li ci yàlla saa borom wax rek la ñuy def ansaar yëpp daan ñun del la Saad ibnu Ubaada doon wax démb nattoon nan na ko Hilaal ibnu Umayya de loolu dal na ko te xam naa ne moom bu fekkee ne indiwul ñeenti seede seedeem duutu maana weeti mukk ci àddina Hilaal daan ne wallahi inni la arju an yaj'ala Allahu lii minha maxrajan maa ngi waat ci sunu borom yàlla di yaakaar ci yàlla yàlla dana mu wutal maxraj daan ne yaa rasulallah wallahi lii may wax nii man xam naa ne dëgg la yent yàlla Muhammad ne ko waaw moom da xam nga xam naa ne dëgg la waaye lu ci mën a xew daal moom faaw nga indi ay seede mbaa ñu duma la rek faaw nga indi ay seede ak li muy baax baax mbaa ñu duma la yàlla sa borom dogal ci diggante boobu rek ci la laay ji wàcc walladina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadaau illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arbau shahadatin billahi ba ni muy jeexe xam naa waxtu jul wi daa jot nu taxawal ko bañ julli ba noppi insha allahu taala rahim alhamdulillahi rabbil alamin kon nu wéyal noo ngi woon ci fi sunu borom subhanahu wa taala di leerale atteb li ñuy wax liaan liaan baat bi mooy rëbboo waaye ngi nii joo xam ne daa fekk ak góor muy sëy ak soxnaam ah te moom moom dong la moom dong moo ko gis moom dong moo gis loolu te wax ne diw daa njaalo lislaam da ko wutal ay sart sart yi bokk na ca ñeent ñoo xam ne ñooy seede loola te moom amul ñeenti seede yoo xam ne dañuy ànd ak moom seede loolu sun borom subhanahu wa taala indi atteb ku lu mel noonu dal mu ne walladina ñi nga xam ne yarmuuna azwaajahum dañoo tuumaal seeni soxna ci njaalo te amuñu ay seede yu leen jàppale ca loolee nga xam ne moom lañ gis xanaa ñoomu neen la walam yakun lahum shuhadaau illa anfusuhum su boobaa benn ñu duma ko ndax wax na ne soxnaam daa gis muy njaalo góor ñu duma ko ndaxte bu leen fàtte ne borom bi nee na faw ñu duma la juróom-ñett fukki yar ci loolu nga tuumaar sa soxna soosu te amoo ñeenti seede loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bilaay ji wàccee muy laay ju njëkk ji Saad ibnu Ubaada nekkoon sayidul ansaar daane ah te nii rek la ko yàlla wàccee yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ngum xam ne kii ni muy waxee waxee ni ku fiir la mu daal di wax ansaar yi ne leen du ngeen dégg seen sang bi alaa tasma'uuna maa yaqulu sayidukum ñu ne ko kii day daa fiir de ne ko li ci fiir ne mooy moom jigéen jum wacc jum takk ba wacc la kenn ci nun ku ko ñemee takk amut kooku ak fiir ak fiiram sori na moom ci boppam mu daal di wax ne ah man de wax dëgg yàlla xaw ma lenn lu may daa ama amul njaaxle tuuti rek waaye xam naa ne lii yàllaa ko wàcc mooy ne ku fekk ak góor ci sa soxna ñu wax la ne faaw nga dem wuti ñeenti seede boo demee di ko wëri ñoom ñeenti seede yooyu ngir ñu gis ko bala ngaa ñëw fekk kooka moom dem na yoonam loolu rek moo ma jaaxal ci yëf yi waaye du sax dama ko weddi far yàlla saa borom dogal. Hilaal ibnu Umayya ci ngoon gi mu wàcc ñëw loola far dal ko Hilaal ibnu Umayya bu leen fàtte ne kenn la woon ci ñett ñooñu nga xam ne ñoom la alxuraan di tuddee wa ala thalathati alladina xullifu moom daa ñëw wàcc gis góor ci soxnaam bi mu ñëwee di ko wax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wa salaam laaj ko ay seedeem. ñen ñoo koy seedeel mu ne moom amut ay seede waaye li ko wóor moom mooy wax na dëgg li ko wóor mooy moom wax na dëgg ndax man maa gis maa dégg te it li wér te wóor mooy sunu borom yàlla maa ngi rafet njort ci moom ci ne du ma bàyyi nii ala kulli xaalin atte bi leer na mooy war naa rëbboo ak soxnaam far sa borom yàlla dogal laay ji wàcc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woo ko ba mu ñëw mu ne ko yow de yàlla defal na la maxraj mooy kon am nga buntu boo mën a jaar ba génn te kenn du la dóoru juróom-ñett fukki yar moo di yow ak sa soxna soos nga tuumaal da ngeen di ñëw mbooloo fekke ko nga rëbboo ak moom naka ngay rëbboo ak moom moom la sunu borom yàlla di wax ci laay ji ne walladina ñi nga xam ne yarmuuna dañoo tuumaal ci njaaloo azwaajahum seeni soxna walam yakun lahum shahadatu walam yakun lahum shuhada te amuñu ay seede xanaa ñoomu neen illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah innahu la min as-sadiqin góor gi day wax ne maa ngi seede ci yàlla ne moom mii dama koo gis muy njaalo ashhadu billahi la ra'aytuha tazni ashhadu billahi la ra'aytuha tazni ashhadu billahi la ra'aytuha tazni ashhadu billahi la ra'aytuha tazni bu fekkee da ko tuumaal ci njaal loolu lay wax bu fekkee daa bëgg a wax ne ëmb bii bàyyi ko wul ci man day wax ne ashhadu billahi ma hadha alhamlu minni loolu lay wax ñeenti yoon juróomeel ba nag mu daan ne merum sunu borom subhanahu wa taala day maa ngi maanaam rëbum yàlla lay wax maa ngi sàkku mu dal ci sama kaw bu fekkee ne ndaw si dama ko tuumaal ku ne xam ne ne góor ak ni mu bëggee soxnaam ak moom ci boppam ni mu bëggee sutura ak ni mu bëggalee soxnaam sutura ku ne xam ne ne bu demee ba àgg fii rek di wax lu mel nii dañuy jàpp ne la muy wax dëgg la ndaxte loo xam ne yaa ngay wax ne rëbbum yàlla yàlla na dag yàlla na dal ci sama kaw bu fekkee ne damaa fen loolu mooy fa shahadatu ahadihim seeres kenn ci ñoom na nekk arba'u shahadatin billah ci ne innahu la min as-sadiqin góor gi mooy wax ne man maa ngi waat ci sunu borom yàlla di ko seedeel ne maanaa dëgg laa wax daa ko gis muy njaalo wala dëgg laa wax daa mën a wax ne ëmb bi bàyyi kool ci man léegi nag mu des kan ndaw si bu doon ca dongo yi dañ naan kii moom génn na ci mbal gi mu des ndaw si sunu borom subhanahu wa taala laataa muy indi ndaw si mu ne wal xaamisatu juróomeel ba ndax ñeenti yoon la wax ne ëmb bi bàyyi ko wul ci man wala ñeenti yoon la wax ne dama ko gis muy njaalo juróomeel ba mu ne anna laanatallahi alayhi in kaana min alkaadibin maanaam rëbbum yàlla nee na yàlla dal ci kawam moom kooka bu fekkee ne daa fen fekkee ne daa wax lu dul dëgg léegi nag jigéen ji moom tonk na li ko tax a tonk mooy tuumaal nañ ko te ki ko tuumaal seede yim indi wala yi waroon a indi munu koo indi am na lu taxaw taxawaayu seere yooyee mooy lan giñ na ñeenti ngiñ yoo xam ne da caa wane ne moom mii daa njaalo gis na góor ga wala mu wax ne moom mii ci boppam ambu bi ba jugewut ci moom borom bi nee na wa yadra'u anha al adaba nee na wa yadra'u na daa di jeñ dégg nga lii boo deful ndànk rek li arab bi dana la xaw a jaaxal tuuti waaye dara u ji faailam mooy an ji ak lim dugg bi maanaam an ak lim dugg an ji ak faal jim dugg moom ngay taawil ci masdar nga ne waaye dara u shahadatu arbai shahadatin billah mooy mooy mooy jañal mooy puusal mooy toppale an haa ci ndaw si lu mu koy toppaleel al adaba mooy duma yi nga xam ne naroon nañ ko koo duma ndax góor gi moom fi mu toll nii tembe li mu wax nii buñ ci sukkandikoo bu fekkee ne ndaw si nangu wut a giñ ne moom mii du wax li wax du dëgg des na ko duma kon nag moom faw moom mu jéema jañal mbugal boppam man a gëtën al azab dañ koy jëfandikoo ci alxuraan ak jublu gëtën fa fa ida uxsinna fa in atayna bi faaxisha fa alayhinna nisfu nisfu ma ala al muxsanaati min al adab foofu mbugal foofu fi fi tekkiwul mbugal mooy ay duma lay teg wala sax fii wala yashhad adabahuma taifatu min al muminin moo tax lugal arabiya dañ ko war a jàng xam ko bu dul lool rek boo ci xóotalul rek mën ngaa jël jenn benn baat xam ci menn maanaa di doxee ak maanaa moom ay dem rek. te fekk nag alxuraan jii sax moo ci raw léeg-léeg gis baat boo xam ne dana ñëw fii tekk fii ñëw fii tekk fii ñëw fii tekk fii wala neexoon nga jël baatu waraa waraa ñëw na di tekki ci kanam wa kaana waraahum maliku yaxudu kulla safinatin xasba mooy amaamahum foofu loolay tekki waraa itam dana ñëw di tekki maanaa baatu xayr fa man ibtaxaa waraa dalika maanaa xayra dalik wala mu ñëw di tekki loo xam ne ci ginnaaw la nekk dégg nga loolu misaal laa ci joxe borom bi subhanahu wa taala nee na jigéen ji na jañal boppam ay duma ndax fi mu toll nii tembe dañ ko war a duma bu fekkee ne moom jañalut boppam tu ay duma naka la koy defee naka lay jañale boppam ay duma mooy an tashhada mu seere mu seede arbaa shahadat ñeenti seede yoo xam ne billah lay doon ne innahu moom góor gi la min alkaadibin li mu wax du dëgg ashhadu billahi inna hada alxamla minhu ashhadu billahi ma raani azni maa ngi waat ci sunu borom di ko seedaloo ne moom mi gisuma may njaalo maa ngi waat ci sunu borom yàlla di ko seedaloo ne ëmb bii ci moom la jóge loolu fekk na julli ñu bëri ña ngi ko fekk xam nga wax dëgg yàlla fii xaw naa doy waar lool ndax kuñ xam ñëpp xam la ci ak mbaax nga ñëw taxaw fii di wax lii ngay wax jigéen ja mën naa am ñëpp xam ko ci mbaax mu ñëw taxaw li mu wax loolu mooy atteb lislaam ci boppam nii la ko yàlla bëggee waaye mënuñu koo ñàkk jëfandikoo ndax yàlla moo santaane loolu ñoom ñu koy defee noonu mbokk yi ndax lii léegi yéen a koy gisati fii déedéet ñu ngi julli de ñi ngi woor de ñi ngi joxe asaka de ci ñi ko am ñi ngi dem màkka de waaye atte yu mel nii nga xam ne suñu borom yàlla daf koo atte nga xam ne bu fekkoon ne mi ngi am da nga toog nangami at te doo dégg dara lu jëm ci buntu boobu ndax nit nag du du gàccaal boppam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daawoo xilaal ba mu ñëw mu ne ko yàlla wutal na la maxaraj maxraj bi mooy lii yàlla sa borom santaane ci alxuraan loolu ngay def ñu daal di woo soxna si mu ñëw moom itam moom ci boppam moom hilaal seede ñeenti seede ne maanaam moom mii ci boppam dama koo gis muy yaalu bu leen fàtte hilaal hilaal kilifa la alxuraan wàcc na ci moom nee na waa ala salaasa moom mii kilifa la kenn la ca ñooña moo tax saxaaba yi doon wax naan man de ñu bu fekkee ne xilaal maanaam moom amut maxraj kon kon kon moom dana doy waar di waaye gis nga attey lislaam yi da cee xëy sëcceewut kenn nga doon kilifa nga ñàkk doon kilifa attey yàlla doon kilifa ak ñëpp moo tax la muy doon doon kilifa ka ci jamono jooju ba alxuraan wàcc ci moom téewul gis nga mi ngi ci mbooloo mi di wax lii muy wax nii ñëpp di ko gis bi waxee loolu ba àggal bi mu agsee ci ñeenteel bi laataa muy dugg ci juróomeel bi yonte yàlla Muhammad daan ne nañ ko taxawloo leeral ko ne ko mbugalum addina moo gën a wayef mbugalum àllaaxira moo gën a wayef mbugalum addina bu mu fi tuumaal kii te fekk li mu koy wax du dëgg mu daal ne dégg nga man li may wax xam naa ko li may wax xam naa ko yonent yàlla Muhammad ne ko innahal muujiba bii ngay waaj indi nii mooy indi mbugalum yàlla moom alaxira mu ne li may wax xam naa ko de man maa gis maa gis ndaw si daal di ñëw moom daal ne maa ngi seede ci yàlla ne moom mii li wax du dëgg maa ngi seede ci yàlla ne moom mi wax li mu wax du dëgg daf may tuumaal maa ngi seede ci yàlla ne li mu wax du dëgg maa ngi seede ci yàlla ne wax du dëgg bi mu ñëwee ci juróomeel bi nga xam ne moom merom yàlla la indi ñu mel nañ ko bëgg a femm ne ko defal ndànk bi mu ñëwee ba foofu sax moom ndeysaan talakka at wanaka sa tuuti mu deltu ginnaaw ndax xam nga boo nekkul ci dëgg pour nga engagé day xaw a day day xaw a day waar dem na bay waaj a bàyyi ci nga xam nartoon dugg ci buubu juróomeel bi waaye mu xool ne aw nitam ñëpp ay bokkam yëpp ñu ngi fi mu daan ne man ñii duma leen gàcceel la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah ni mu ne sama askan wi duma leen gàcceel mu ko ci àddina gàcce di leen topp ñoom ba faw ñu naan ku bokk ci ñoom a def nangam ku bokk ci ñoom a sëy ci ak góor ba noppi wal ba di ko di njaalawaat loola moom xalaatuma ko rek tàbbi ci boobu juróomeel ba daan na merum yàlla ay yàlla nekk ci moom moom li muy xëcc garaaw na bu fekkee ne maanaam li wax du dëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ne waaw léegi ah kooku yàlla ko yónni ne léegi comme yëf yi jeex na léegi àtte bi moom mooy lii bu doom juddoo buñ ko askanale baay waaye nag maa ngi leen di wax ne doom ji bu fekkee ne daa juddu mel nii mel nii mel nii yéen yi mel nii ay njekkikaay mel nii ay yeela mel nii bu fekkee ne noona la ni daan ni moom wax ne yoti moo ne wax ni ngeen koy bàyyi xel moom jigéen ji bu amee doom doom ja mel nii mel nii mel nii na ngeen xam ne doomi diw la su fekkee ne nii la mel mel nii doomam la dégg nga loolu xam nga ne yàlla ci moom moo ko xamal ndax doom joo xam ne ma nga ci biir ma nga ci biir ndeyam nga mën a wax ne bu ñëwee mel nii mel nii mel nii ba mu ñëwee moom doom ja laa ilaha illallah ndeke ndeyam a ko jur ca ka nga xam ne moom la xilaal waxoon ne kookaa siq ak moom kooka la doom ja jël bay benn xam nga yàlla ni mën a àttee rek bu dee suñ jamono ji léegi ñu naan xama léegi am na ay xamal xamal lan ADN nga wax ADN ADN ADN waaw ADN moom foofu du ma fi dugg ndax ndeysaan ñàkk gu ñàkk jëfe atee lislaam yi daf noo indi lu bëree bëree bëree bëri daf noo indi lu bëree bëree bëree bëree bëri sunu borom yàlla dogal ndaw sa doom ji bi mu ñëwee ni yonent yàlla Muhammad waxoon ne su ko melee borom këram set na wicc noona la doom ja mel yonent yàlla Muhammad daan ne law la lawlal aymaanu la kaani la kaana li walaha sha'nun su su dul koo nag ngiñ yi nga xam ne moom la giñ fii ngiñ ñu tàng jir yim giñ fii te nga xam ne ngiñ yooyu ku ko xas giñ rek maanaam moom kenn mënatu laa duma moom bu dul koo nag loolu kon danaa jaa am foo jaaraat ak moom waaye jeex na lawlal aymaanu la kaana lii wala ha sha'nun kon loolu muy tekki mbokk yi loolu li muy tekki dafa bari wala yii li muy tekki dafa bari mooy lislaam ci boppam dafa réyal lool lu jëm ci wàllu askan bëggul rek nit ñi ñàkk a tënku tinkeeku fu waay xam rek dañ fa sa bopp ñuy indi ay doom yoo xam ne ci biir xeet wi duñ am ay baay wala seeni baay duñ jël ci ñoom ay responsabilité ndax ku dem njaalo ji wala yasubillahi taala doo jël benn responsabilité ci doom jooju noonu da nga koy bàyyi muy taxawaalu waaye bu ñu demee ba àgg ci réew moo xam ne tey nit day njaaloo ba noppi du ko daw dawut loola moom bisum ngénte ba daa ñëw teew dégg nga bisum ngénte ba ci boppam daa ñëw teew moom ngénte la itam xum mel ne ngénte yi nga xam ne ngénte la dëgg la ngénte la ngénte la waaye li ma bëgg a wax xam ngeen ñu xumbal ko lool auzu billaahi mina shaytaani rajiim suñu borom yàlla xam naa ne lewetam gi day da ngay xool nit ñu jàdd aw yoon ba noppi wëlbatiku mel na dañoo tegu ci aw yoon nit ñu jàdd aw yoon ba noppi wëlbatiku mel ne dañoo tegu ci aw yoon kenn mos naa gis loolu ci àddina ah ñu ñu xumbal ko lool te loolu kat mi ngi ne xus ci suñ réew mii ñu nekk nii waxambaane yu bëree bëree bëree bëree bëree bëri ñi ngi ànd ak seytaane di tàbbi ci bàkkaar yu mel nii bal sax léeg-léeg nit am soxna ba àgg loolu ba tiku xam naa wax dëgg nag wax dëgg nag xanaa loo mën a mën a def ay caaxaan nag nga nga bàyyi soxna si jaambur nag soxna soxna dañ koo takk ci fardullahi wa sunnatu rasuli waaye jigéen ji itam moom itam xanaa moom itam lu maanoo di ko maandoo di ko xanaa itam maanaam man fee bàyyi nag góori jaambur itam moom mi ngi jëkkër mi ngi jëkkër ñaata jigéen ñoo am jëkkër ba noppi wala ami far ñaata jigéen ci Sénégal gi ñoo am ay jëkkër ba noppi wala batiku maanaam am ñuy dox ci suuf di leen woo di jokkoo ak ñoom di wax ak ñoom waxin woo xam ne day mel ne seeni borom kër wax ji nga xam ne sa borom kër boo ko doon wax boo ko doon waxee ak yow lislaam du ko wax dara yow nga ñëw di ko waxee ak soxna si jàmbur soxna si jàmbur di ko wax ak keneen dañoo àgg ci jamono joo xam ne si sëriñ bi yàlla doo nga mën a muslim yàlla kese laa la wax ni moo mën a musle jamono ji ñu toll nii lépp loo xam ne xeetu mooy mooy la mi ngi ci kaw réew mi ngi ci réew mi da ngay xool nit koo xam ne wala yaasu billaahi taala mi ngi ci barab boo xam ne appareil la yor di filma boppam di ko wan keneen kooku itam nekk ci tranquille gu mat toog moom di seetaan loo xam ne wóor na ko ne ba ko faatu fekkee foofii buy wuy ji suñu borom yàlla ci wuy gu doy waat la koy wuy ji xanaa nag nag wax dëgg yàlla nag nga am kersa sa digg ak yàlla nag ndax yow yaa ngi toog di seetaan loo xam ne bu malakul mawti ñëwoon di la jël tey tey booy booy wuji laaxira booy dekki noonu ngay dekki waale xanaa kenn bëggu dekki fii ci mën a di seetaan lu mel noonu ana yàlla ana rus yàlla saa borom subhanallah la ilaha illallah subhanallah seytaane ci boppam moo bari ab liggéey bu muy def yi may wax yépp seytaane moo laxasu ci biir mooy def loo ay nit loo xam ne sëñ bi jamono bi ñu koy def sax ñoom ñu koy yëg te waxoon naa leen fii soriwul dara yàggul dara jotaay ba la jàll mën nga leen lu jëm ci buntub jigéen ci boppam ak lu ci aju lislaam daf ko sëngeen lool te insha allahu taala dana gën a feeñ ci saar wii nii li yàlla saa borom santaane góor ñi ñu war koo jëflante ak soxna yi dana feeñ lool ci jëmmi saar bi bi ma tuddee bi may tuddee ma ne jamono ji ñu toll nii jigéen ñi ci boppam daanaka képp ku tàbbi ci bàkkaar ñoo la ja tàbbal ñu bëri ci ñoom laa bëgg wax ne waxuma ñëpp nag am na ci ñoom ñoo xam ne fan dafa daan te taaba léegi moom ma ngi fay daal waaye dafa am ñoo xam ne ci ñoom ñoom xama dañoo xamul seen bopp xamuñu demee noonu ndax jigéen bala ni mu gànjaroo ci lislaam ak fi ko lislaam teg xoolal waqar na fii buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljaahiliyati l ula te kat lii ñuy wax nii kat li ci gën a doy waar mooy jamonoy saxaaba yi laa xew laaw lii may wax nii jamono joo xam ne alxuraan a ngi wàcc jamono joo xam ne muhammad mi ngi sallallahu alayhi wa sallam jamono yoo xam ne boo geesoo gis abou bakar gis omar gis ousmane gis ali gis abu hurayra jamono yooyu la lii doon naan ñu dem ba sori ko diggante boobaag léegi kenn xamul ñaata junni at moo fi jaar sëñ bi lépp évolué lépp jëm kanam.
nga mën a yor portable boo xam ne man nga cee fanaane seetaan lu baaxut ah jamono ji daa mat a ñaan de yàlla musal la teewut nag nit ak ragal yàlla mën naa nekk ci moom ba àggal wëlbatiku moom mooy yàlla gi laal ko waaye li wuutale ñi ragal yàlla ak ñi ragalut yàlla mooy ñi ragal yàlla dañuy teel a dëpp inna alladina taqaw ida massahum taifum min asheytaani tadakkaru léeg-léeg seytaane lëmbaaje seeni mbir ñoom gaa yooyu nga xam ne ñu ragal yàlla xaw leen a xaw leen a xaw leen a tuuti waaye ñoom dañuy gaaw a fàttaliku gaaw a teguwaat ci yoon fa ida hum mubsiruun walladina ida faalu faaxisha aw zalamu anfusahum dakaru llah fastaxfaru kon amoon nañu bàkkaar moo tax ñu koy jégalu fastaxfaru li dunubihim wa man yaxfiru dunuba illa allah waaye daw ba ngay ami tànk laa wax dégg nga da ngay daw ca ba ngay ami tànk damaa bëgg di ma jàngal ak aha kay ñëwal jàng waaye ci man de bit ci bitti gi laa lay jàngale ñëpp gis ma lay jàngal waaye tey jum néeg na da ngay jàngale boo donte alxuraan ngay jàngale dëgganut dëgganut nga nekk jigéen naan da nga koy ñaanal ci biirum néeg yow kot ak moom dëgganut ndax yonent yàlla Muhammad moo ne jigéen ak góor fuñ do fuñ fan fuñ nekk beru seytaan ñëw ñetteel leen mënoo ci dara mënoo ci dara amul naan damaa baax ak amul damaa damay léeg léeg la dugg foofu lii mbirum nit la mbirum nit la nit la ku yàlla bind am ay yëg-yëg yu mu def ci moom ak jigéen ji yàlla sama borom bind am ay xemem teef yu mu def ci moom. mel na mag da doon toppalu gone ca daara ja muy beq. mu di ko toppal alluwa ji ak si ci in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum xam nga kabaira jooju ndogaan la xamoon ngeen ko yéen béqiwu leen moo tax du ngeen xam lool kabaira jooju kese mooy dog da nga koy dagg kabaira ji da nga koy dagg da nga koy maanaam bu doon ci ku jàng rasmi maanaam la saabit la waaye nekkul maanaam maxduuf ndeysaan gone gi da koo ajoot mag mi jël alluwa ji daal di ko koy dogal ne ko ne ko kabaira ndogaan ndogaan ca ca jigéen daal di jooy daal di jooy ba yàgg mu siggi ne ko doom xam nga li may jooy lu mu doon man jigéen moo ma dog moom doon na dox ku so farlu woon fetug yàlla waaye jigéen moo ko dog ni kabaira ji nekkee ndogaan fii nii ci nekk surtout ni say jigéen xanaa da ko wax xel mi nekk ci loolu man lii boo gisee sax bëgguma ci waxtaan lu bëree bëri ndax su ma ci su ma ci dee wax day mel ne damaa mucc te man mucc gu ma waaye nag du tee ànd ak li may ñàkk ñàkk mucc du tee man ma sàkku yàlla sama borom musal ma musal sama mbokki jullitam waaye faw itam du mën a ñàkk ndax jamono ji ni mu tëddee moo mel noonu maanaam fan yi nga xam damaa mel ne damaa gis sama benn peñ boo xam ne fi xam dañoo dagg loola tasaare ko ci kii bi dafa am fu mu dugg fekk man maa nga fam am ku ne man day li ma gis ci école yi tubaab yii di ca wax loo xam ne man daa ub saa bopp bi man far dafa ub saa bopp bi far waaw sëñ bi jigéen joo xam ne mi ngi tol ne ndeyam ah xëy defaroo defaroo sëriñ bi muurut yaram wi ba noppi sol sëñ bi yu doy waar ne day jàngi lu muy jàngi lan la moom bu fekkoon ne kenn la wala ñaar waaye ay téeméeri jigéen yoo xam ne ñëpp ku ci gën a sollu gën a bon sa morom gën a dang gën a yaraax nga ne kii ñoom ñëpp ñu ànd jëmandoo fenn góor ñi itam kasaalika jëmandoo foofu ñu bokk benn classe ñu bokk den dañoo dend la ilaha illallah jigéen ji moo toog nii góor gi toog sësëg moom allahu akbar waaw loolu naka ñu amee tranquillité maanaam ba ba wàcc jot ah yow naka ngay mën a toogee ak jigéen sus ci yow mu léeg looy jàng laa xamut sax ngeen loolu dara jëru ko dara jëru ko ci àddina wallahi dara jëru ko ah xam nga noonu xoolal xoolal yi fii ni mu tëdd rek ba noppi ñu ñu naan mi ngi noonu fii ne lu fi xew rek lu fi xew rek man man man jaaxalu ba man ndax ak soo rawat na jamono jii ñu toll nii lislaam kon maa ngi ñëwaat di wax ne xoolal jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii di xew nii yonent yàlla Muhammad di ko àttee nii di ci sukkandiku alquran waxi yàlla mujtama boo xam ne mujtama nazif la ñu xam ne ñoom ci yàlla la ñuy delloo lu xew lu nekk ci suñu borom yàlla lañ koy delloo waaye fi mu toll nii àgg nañ foo xam ne si nit ñaa ngi jàngi alxuraan dokaan yaa ngi bari lool at mu jot ñu ne daara ji génn nangami da lay ngis daara jox day génn téeméeri nit ñu mokkal waaye mokkal dong lañ def nag dañoo mokkal dong waaye liñ mokkal xamaguñ ko alxuraan ñetti yëfa ko tax a jóg huwa alladi baasa fil ummiyin rasulan minhum yatlu alayhim loolu mooy donga yi waa daara ji mooy yatlu alayhim ayaati yi beneen bi mooy wayu zakkihim dañ leen a war a yar ci seen alquran jooju ñu jàng li alxuraan di jàngale bu dee ay jikko yu baax la ñu yar leen ci ñu teel cee yaru bala ñoo dem fenn lu ci topp ah bu ñu demee nag ba doon ay mukallaf ñu xamal leen alxuraan ak sunna wa yuallimuhumul kitaaba wal xikma gis nga alxuraan daane lii jiitu yëpp ci réer lañ nekkoon wa in kaanu min qablu la fi dalaalin mubiin li jiitu ngay romb ñetti marxala yi ci ak réer nga nekk saxaaba yi bi ñu xamee loolu ñoom wax naa leen ko fii waxati leen ko moom fukki laaya lañ doon jàng xam la ca nekk fas yéene koo jëfe gis nga boo doonee waxambaane boo doonee waxambaane rawatina yàlla jox la aw tur loolu mooy musiba mi gën a rëy ci àddina aw tur li ñuy wax suhura muy siiw li gën a bon ci àddina mooy loolu yàlla amul yàlla mi amul kumba xam na ko gis nga boo boo boo salafu saalix dañ daan wax ne ku dëggal diggam ak yàlla du bëgg mukk siiw ndax siiw ci boppam daf laa mën a yóbbe lu ne aw jigéen sax tey maana ci sa biir siiw googu ñoom ci la ñu bëgg a langaa miitu ndax ku siiw ak borom alal dañoo wóoru daanaka dañoo soriwut ci jigéen ñi ni ñuy jëmee ci ñoom mooy lan jigéen ñi dañoo jàpp ne ku siiw maana daanaka lu lu mu mënta lijjanti amut ndax ci biir siiwam googu noonu ak personnalité yi xam ak yu mel noonu ci la ñuy jàpp ne kii moom lépp war na ko mën a jëndi su ko defee nag foofii nag yow itam ngay waxambaane toll ci digg doole ba noppi lu di siiw maanaam ñii di ñëw yow itam ngay ñëw bu ngeen dajee du baax bu ngeen dajee du baax mbokk yi mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala nee na wala taqrabu zina innahu kaana fahisha wa saa sabila bu leen yàlla waxut bu leen wala tasunu de bu leen jaaloo waxu ko de dane bu leen ko jege la wax wala taqrabu zina daal ne innahu ndaxte zina kaana fahisha lu ñaaw la ba noppi da yoonu bon la wa saa sabila yàlla bi muy tagg ñu baax ñi dane walladina laa yaduuna maa allahi ilahan axar wala yaqtuluuna mën na koo dal waaye bu ko dalee itam mu xam ne seetaane ko man rek mu tuub diggam ak boroomam subhanahu wa taala mën naa tuub sax jëlee ca maanaa maana yii goo xam ne day mel ne bu tay bu wutoon ci bakkaar boobu du ci mën a du ci du àgg foofu ndax am na ñoo xam ne maanaam bàkkaar biñ tàbbi bañ ca jógee réccu gën ca jëlee ak tuub bu metti gën ca jëlee tax na daanaka amatuñ bàkkaar daanaka fa ulaika yubaddilu llahu sayiatihim xasanat ndax heure bu nekk ñoom seen xel du dal même buñ doon julli di woor ak yépp seen xel day nekk ca loola moo tax ñuy tiit te tiit googu noonu ñuy def seen digg ak yàlla mooy far seen bàkkaar yi nga xam ne moom lañ amee woon moo tax gis léeg-léeg koo xam ne si day tàbbi ci bàkkaaru njaalo wala ci bàkkaaru sàcc wala ci bàkkaar yu mel noonu jugee fa am maanaam xeetu ragal goo xam ne diggam ak boroomam fa lay doxee dootu deseeti bàkkaar fii ci kaw suuf si yàlla itam daa xariñ di summa jtabaahu rabbuhu lu ci topp fa taaba alayhi wa hada summa taaba allahu alayhim li yatuubu ndax itam yàlla sama borom bu fekkoon ne daf ñoo def ay malaaka ay malaaka ñun du ñuy malaaka malaaka yi mooy ñi nga xam ne ñuy sàbbaal yàlla guddeeg bëccëg te duñ mooy yàlla malaaka daa mënta mooy yàlla moom ndax bànneex la amut ñun ñii nag dañoo defal ay bànneex ñu am ay yëg-yëg jigéen romb la léegi nga yëg mu wax yow ci téléphone nga yëg ngay xool portable far mu far jaar ci sa kanam nga far yëg mu far romb la sax di wax ak yow ay wax joo xam ne sax jëmutoon ci li nga xam ne moom ci la la tàbbal ginnaaw bi yow nga far maanaam loola far topp la benn yoon ah ñaan yàlla dong laa ci xam de du nit moo mën a musal boppam de du nit moo mën a aar boppam de. wallahi ku tabbiwul ci bàkkaar yi yàlla sa borom di tere fii yàlla ci boppam moo la musal xoolal yonent yàlla Yuusuf borom bi nee na bi nga xamee ne ndaw sa xoolal kooku rek moom itam ndeysaan ak ak taar ba taar ba Yuusuf ni mu rafete woon ndeysaan taar ba àgg na ci moom ci boppam ndaw si nga xam ne moom la nekkaloon bi muy sàkku la muy sàkku ci moom mu daan ne ah damay lànk fastaasam la andaw sofa dane man maa doon sàkku ci moom mu lànk fastaasam fastaasam baatu arab bi ci laa ko ma dafa dafa dafa dafa dafa mooy maanaam man maanaam dafa të dafa të baatu fastaasam loolay teg mais dafa të waaye xoolal ndaw si ngir bëgg wan nit ñi ne leen bu bu doon yéen wan jigéen ñi ne leen bu doon yéen tam ngeen def ko mu daal di maanaam invité ay jigéen daal leen di dëne mooy invité dëne ay jigéen ba mu déggee ne ña ngi koy jëw falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna mu mu tax jigéen xool rek xoolal fi mu toll tembe li mu waajal nii muy ay ay lekk yoo xam ne paaka lañ koy lekke te fekk kat jubluwut loolu dafa am leneen lu jublu arsalat ilayhinna wa aatadat lahunna muttakaa bi jigéen ñi duggee ci kër gi kenn ku ne sóonu mu jox kenn ku ci nekk maanaam loo xam ne da nga koy lekk te di ko lekk ak paaka mën naa am pom la mën naa am leneen la wa aatat kulla waxida minhunna sikkiina fekk moom li muy waajal mi ngi koy waajal mi ngi defar Yuusuf mi ngi sol ay di ko solal ci ay ah ndax booba dañ ko jàpp solal ko yére yu rafet ba noppi daa ne ko uxruj alayhinna nel tëll loolu mooy uxruj alayhinna nel tëll fekk leen fii ñu nekk ñoom jigéen ñi gis nga Yuusuf bi mu génnee ak taaram boobu noonu fa lammaa ra'aynahu ba ko jigéen ña gisee akbar na dañ ko réel paaka kooku rafet na paaka yi ñu yoroon ñoom jigéen ñi doon ci dagg xama pom la xama banaana la pom yaa nga fële banaana yaa nga fële léegi seen bopp la ñuy dagg kan moo rafete noonu fii ci kaw suuf si ñu nekk kan mooy dox fii jigéen di daanu ak a fa kastalu yow yaa ngi ñaaw alum neen ko man ah di kër ci kër ci fii ko man nag mu ko dee mu woyof daal waaw wa qattaana xoola ba alxuraan alxuraan waxut ne alxuraan ne ba si xoola yàlla ni mu jëfandikoo qattaa qattaa mooy dagg-daggee loolu lay teg qattaa mooy dañuy dagg-daggee ay di yexun na ba noppi nag boole ko koy wax ñoom ñi ngi am ngaañu ngaañu ñi ngi ñi ngi dagg seen bopp muy metti te yëguñu metti di ña ngi cay boole di wax nag wa qul na haasha lillah ma hada bashara lii du nit lii du mindeef in hada illa malakun karim ndaw si nga xam ne moom mi ngi ci xaalatul baqa diñ koy waxee nga xam tàmm na yëf yi ma nga taaw fale naan aywa mi ngoog fa dalikunna alladi lumtunna nii fii ah lii da ngeen ma doon yedde léegi nag jot na mu ne wala qad raawatuhu ndax su ko waxee daf du am gàcc ndax ndegam ñii ñoo dëkkut ak moom gis ko benn yoon di dagg seeni loxo kon moom mi dëkk ak moom kon wax dëgg yàlla war nañ ko mën a nag wala qad raawatuhu an nafsi fastaasam ah yusuf alayhi salaatu wasalaam suñu borom yàlla nee na ba nga xamee ne ñaawteef daa jug jëm ci moom man maa ne ñaawteef dëppal kadalika li nasrifa anhu suu wal fahsha innahu min ibadina al muxlasin allahu akbar dafa bokk ci sama jaam ñu sellal ñi moo tax ñaawteef ak si wut ci moom waaw koo xam ne àgg nga foofu ñaawteef saa bu jugee yàlla dëpp ko yusuf dem na ba àgg ci ne rabbi mujj léegi ñaan moo ko dese ndax jigéen ñi nga xam ne ñoom lañ indi woon kenn ku ne yaa ngi koy sàkkul sa bopp mu daan ne rabbi asijnu ahabu ilayya mimma yaduunani ilay yàlla tabbi kaso ma gënal li ma ndaw jigéen ñi liñ may woo nii muy tabbe njaaloog ñoom dugg ci kaso bi moo ma ko gënal ah baaxa ngi noonu rabbi asijnu ahabu ilayya mimma yaduuna ilay daan ne yàlla boo dëddalewul sama digganteeg jigéen ñi ak seen pexe yi danaa jeng ndax man nit dong laa nag wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna ndegam Yuusuf mooy wax loolu kon de keneen ma ta wax ñu naan waaw léegi bu fekkee ne dañoo de jigéen ñi dañoo dend ak góor ñi yëg-yëg bi newoon ci góor ñi day wàññeeku bokk la ñu leen di ñu leen ñu naan nañ kay dañ toog fee ñee toog fee ndax loolu buñ ko dee def tappalay neen tappalay neen yii ñu wax nii ci falsafa ci bopp nit ñi bokkut ak leen lislaam di jàngale ñu naan kenn ku ne waaw jigéen ñi bu fekkee ne ñoo bëgg ber leen ñu njàng fee loolu day gën a tax góor ñi di leen sàkk du loolu jege googu ñu jege nag ah wala yasu billahi taala kon fi may jeexale mooy koo xam ne danga fekk sa soxna nga ne ko yow kat doom ji nga yor nii wax dëgg yàlla du saa doom du sama doom lenn dong dong dong dong mooy tax du doon sa doom mooy lan liaan kese bu dul loolu alwaladu lil firaashi même boo ji tuumaaloo nit sax lu tax mukkul islam di wax nit kooku ne ko kaay jël sa doom ji alwaladu lil firaashi maanaam ndaw si ndegam moom mi ngi ci buumu sëy jëpp doom ji juddu ca biir sëy ba rek moom lañ koy moomale moom lañ koy moomale boroom kër gi nag bu ko bëggee dàq bu bëggee dàq doom jooju ne du ne mën ne duma du ma bàyyam nag am na sañ-sañu jaar ci yoonu lislaam wi nga xam ne moom lañ doon jàngale léegi su ci jaaree rek yàlla dogal na incha allah xoolal ndeysaan kii yonte yàlla Muhammad doon wax nii naan bu juddoo mel nii mel nii mel nii diwa ko jur bi mu juddoo dem na ba doon mag sax am na jamono moo jiite dëkk bu ñu amir la woon ci Misra waaw amir la woon ci Misra xaw ña nga ñi nga xam ne ñoo ñoo fekke woon loola démb xam nañ li fi xewoon lépp waaye nag kenn ku ne ah ñi moo tudd ŋaang de ci bi comme ni comme ni mu tëdd nii nga xam ne si da ngay ŋaang naan kii kii ngeen i daat loolu boo ko defee ñu duma la de ci biir lislaam da ngay téye sa làmmiñ ñu laa la wax da ngay téye sa làmmiñ ñu de lislaam dafa dafa réel maanaam mbirum der kii moo fi defoon léegi dañ lay duma de tuba lañ lay def juróom-ñett fukki yar lañ lay dóor juróom-ñett fukki yar ngay def mu kàlla mu ñu ñu dóor la juróom-ñett fukki yar xam nga loolu suñu dee waar lool mi ngoog yal na yàlla saa borom musal yal na yàlla saa borom subhanahu wa taala moom mi mën a musle yàlla na nu musal moom mi mën a aare yàlla na nu aar yàlla na nu sëŋe wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin